exposition bi nga xam ne commission scientifique bi moo ko doon def ci jëmmalaat liggéey seen loo seen yàpp loxo Mbacke sëñ Youssou ginnaaw bi nga xoolee dégg li nga xam ne dégg nga ko ci jëf joo xamante ni yaakaar naa ne xam nga ko lool ndax mën naa ne képp kuy liggéey ngir yaatal si sëñ Abdou Lahad Mbacké yéen la ciy jàppale ndax yéen da ngeen bokk ci formation yi nga xamante ni maanaam produit yi nga xamante ni ci production sëñ Abdou Lahad Mbacké kon war ngeen a mën a am lu ngeen jàngat ci dund ak liggéey Serigne Ibrahima Mbacké waaye nag li nga xam ne balaloon nañ ko fii ci exposition bi nga xam ne commission bi Serigne Sidi dénk lépp lu jëm ci scientifique bu màggal gi ngeen ñu taxaw ci loolu lañ bëggoon a xam dëgg-dëgg lan moo ci say réaction ak euh, lan nga ñuy ci Serigne Abdou Lahad Mbacké mi nga xam ne yaakaar naa ne xam ngeen ko bu wér a wér euh, jërëjëf ñu ngi euh, feeñal sunu mbégte ak tamit di yeesalaat sunu taalibe hmm. ndax Serigne Abdou Lahad ñun sant ko moom lott nañ ci waaye xam giñ ko xam moo indi kerse gi nga xam ne moo tax ma ne noo ngi yeesalaat sunu taalibe di toroxlu waaye liñ fi fekk nag lii rek moo am solo ndax fekk nañ fi jëf ndax yàlla suñu borom ab jaam lu mu lott lott ci sant ko it sañ naa jël léppam jébbal ko ba noppi di toroxlu toroxlu gi mooy mottali moo tax suñu borom mooy mottali say jëf euh, li ma gis fii na yaatu ci kër yi ndax sëñ tubaa ku bëgg yéemu ci mbiram sëñ tubaa du ko ñu xam xaaban maqaami an siwal baaxil xadim xam kon suñu borom moom rek moo xam kuy sëriñ bi waaye nag sëriñ bi boo ci bëggee xam dara njabootam gi doy nañ ci kon tey jii bu ñëwee fekk fi exposition ci sëñ Abdou Lahad ñuy wane lii ñuy wane ndaw ñi di ko gis mag ñi di ko gis góor ñi di ko gis soxna ñi di ko gis ñun am nañ lu tax ñu war a am jom am nañ koo xamante buñ ko xoolee dañ ñu ñee waaye du ñee kenn mhm. loolu moom mooy Sëñ Abdou koo xam ne suñu bàyyee xel mooy kan mhm. dañuy xam suñu bopp te suñu borom nee na boo xamee sa bopp rek xam yàlla suñu borom loolu kon defe naa man damay sant commission bi mhm. te it di wax ne ñun du ñu benn kuréel bu beru ne le yéen ngeen nekk ni dañoo bokk benn liggéey toolub sëñ Tuubaa yaatu ba nga xam ne kenn mënu koo matale kon kenn ku ci ne di xool sa morom di ko naw ñuy nawante di bëggante kenn ku ci ne boo gisee sa morom doo ko gëmee loolu mooy li dox sama diggante ak ñi nga xam ne ñoom sëñ Abdoulahat Jaxate ak ñi mu ko àndal ñëpp ci wàllu liggéey bi di leen sant tey feddiliwaat suñu kóllëre suñu diggante ak yéen sëñ Sidi nag siyaare nañ ko ndokkeel nañ ko ñaanal nañ ko mu yàgg fi loolu te wér euh, lii nga xamante ne mooy jóg jéego yi ñu jóg sañu yu fay wax wax ju yàgg ndax bis la boo xam ne yoonu murid gépp ko bokk waaye lislaam gépp ko bokkin ndax koo xam ne jàngale na bay jàngale ne ku gis sa mbokkum jullit nga di ko sikkal na nga xam ne diw murid la diw xaadir la diw tijaan la mu ngi mel ni ñett ñu bokk ndey ak bàyyi kii xees kii ñuul ko xereer kii xereer kenn mënu caa tam kenn ba ñu ragal ko ñeme la loolu moo ko daan jàngale loolu boo ko xoolee kon da xam ne bis bi kon bisub lislaam gépp la te lislaam suñu boolee suñu bopp rek yàlla amul xol waaye di jël jël di jël xolu jullit yi def ko muy xolam su ko defee lijjanti lépp lépp yéwén jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum mu ñëw ñaari baat rek ñu fàttalikuwaat Serigne Atou Diagne euh, rahmatullahi alayhi mu doon ko am taxawaay lool ci diggam ak ñëpp Abdou Lahad ñu ñëwaat ci rek ay kàddu yu néew rek ci diggam liggéey liggéeyu Serigne Abdou Lahad bi waaw loolu lu ko mat la ndax bi ma siyaaree sëñ Sidi rek duggaat ci salle bi euh, xoolaat fii nga xamante ne daan nañ ko fi fekk ma romb fi nga xamante ne itam wax dëgg yàlla jox nañu fa café ba tàyyi ndeysaan euh, Baye Baara Ndiaye yàlla na yàlla suñu borom dolli ci moom yërmande ak xéewal daanu ko indil ak mag yi kër gi yëpp rek euh, kon defe naa dinaa wax ne si aatu moom si ablaat moo lépp léppam ndax ba muy jàng nekk université jeexal am njàngam jox boppam si ablaat si ablaat daf koo defal taweetu li ñuy wax taweetu tarixal xaw mi wax tam daay yi def ci moom ay jikko yoo xam ne wares naa jaar daara dem fu baax fu ne di def ay jawalaat di seeti ñu baax ñi ngir am jikko yooyu mu tawe mu mu tax mu taxañal ko ko ci ndimbal moo taxoon si aatu wax dëgg yàlla amoon na gis-gis boo xamante ne ak dogu goo xam ne ci liggéey Sëñ Tuubaa lu ko waay mën a seereel mën naa tënku ci ne amul woon jitte yitte ci kaw suuf lu dul liggéeyal Sëñ Tuubaa te liggéey Sëñ Tuubaa nag mooy garab gi nga xamante ne mbooleem saalihaat yi la muy jur ci aw yiw lépp boo ko dajalee mun nga ko tuddee liggéeyal sëñ Tuubaa jërëjëf ndax sëñ Tuubaa dafa waxoon ne akramanil ilmu maal amali as-salihaati sahal yi kamaal yi ñu tënk ko rek en français donc euh, au nom de toute l'organisation Hizbut Tarqiyyah nous sommes venus avec humilité mais avec détermination pour euh, nous joindre à l'honorable famille de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké et aux disciples pour venir vivifier ce jour La vivification, c'est à travers la lecture du Saint-Coran. La vivification, c'est également à travers les IARA, les visites pieuses auprès de ses, des membres de sa famille. Donc je suis accompagné de responsables des autorités. Nous sommes venus rendre visite à notre guide, notre marabout, Sri Sidi Mbake, puisse Dieu lui accorder une longévité sans commune mesure et lui accorder également une santé de fer. Nous lui avons rendu visite, il nous a honorés. Il il, également, il a réaffirmé son engagement à nous soutenir. Donc nous n'avons pas tous les mots qu'il faut pour lui témoigner notre gratitude. C'est le moment également de témoigner notre satisfaction euh, après notre visite de cette exposition qui est très glorieuse. Une, expo une exposition qui a su refléter euh, des aspects extrêmement importants de l'œuvre gigantesque, de l'œuvre incommensurable de Cheikh Abdullah C'est une œuvre que personne ne peut évaluer, que personne ne peut appréhender. Parce que euh, Serigne Touba, c'est quelqu'un que personne ne peut connaître. Il l'a même dit. Euh, Serigne Touba, c'est un miracle de notre Seigneur. Un miracle de l'apôtre de Dieu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est apparu en ces temps euh, euh qu'on appelle Akhir Zaman. Mais pour connaître Serigne Touba, il suffit de se, de, de, de, de se concentrer pour regarder ses fils. sa famille. Ceux-là qui sont en train de vivifier, de, de, de, de vivifier la, la, sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les valeurs islamiques, ces valeurs sont réhabilitées par les membres de la famille de Seigne Touba. Quand on regarde les enseignements de Abdullah, ça suffit pour être un bon musulman. Ça suffit pour être un disciple sincère qui, qui, ne cesse de, de, de, de rechercher l'agrément de Seigne Donc, il nous a abreuvés, il nous a couvés. et il nous a honorés. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être des mourides de Saint Touba grâce aux enseignements de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. Euh, c'est Cheikh Abdoul Ahad qui a créé cette organisation dite Hizbut Tarqiyyah. Mhm. On l'appelait euh, auparavant Daïra des étudiants mourides, mais nous sommes nés en avec son agrément. C'est lui qui nous a couvés, qui nous a encadrés. qui nous a aidés, qui nous a enseigné les, les enseignements de Seigne Touba, qui nous a également euh, soutenus. Mm-hmm. Parce que le chemin, la voie était tumultueuse. C'était pas facile. Mais lui, il a toujours su nous aider à braver toutes les difficultés pour savoir que quand on s'engage dans la voie de, de la quête de l'agrément de Dieu, il faut que sa foi soit toujours une foi très solide. Il ne faut jamais trébucher. Il ne faut jamais regarder à gauche ou à droite. Il faut seulement se concentrer sur le service de Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rassoul. Donc, euh, je vais terminer par dire quelques mots sur euh, Cheikh, euh, Cheikh Abdoul Ahad avec notre euh, défunt responsable moral, Serigne Atou Diagne, qui nous a quittés récemment. Puisse Dieu déverser sur lui son pardon, sa miséricorde et l'accueillir en son paradis éternel. Seigneur euh, Abdoul Ahad c'est lui qui aimait, qui chérissait Seigneur Atou. Il l'a il, accueilli en tant qu'étudiant, mais il, également il l'a aidé à emprunter le chemin des hommes de Dieu en tant qu'étudiant, qui n'est ne, pas un produit des Dara, mais qui un produit de l'université. Quand il a terminé, il a eu l'engagement de se soumettre au calife. de lui témoigner allégeance, mais également de lui donner son intégralité. Mais après, le calife a accepté cet, cet acte d'allégeance, mais il l'a soutenu, il l'a accompagné, mais également il l'a aidé à parcourir un chemin, un chemin qui n'était pas évident. C'est Finalement, après les, les, les, les, les grâces reçues de Cheikh Abdullah, on pensait que c'est quelqu'un qui était un illuminé, qui est sorti des grandes daras du mouridisme. mais c'est Seigneur Abdoulahad. Avec les enseignements de Seigneur Abdoulahad, on surpasse ses pères. Mhm. Donc nous, nous sommes sortis de cette exposition mhm. très honorés. Nous prions pour toute la commission. Mhm. Euh, nous renouvelons également notre allégeance envers Serigne Touba, mais également nous prions pour Serigne Sidi, euh, Ibn Abdoulahad, pour que Dieu lui accorde, accorde une longévité sans commune mesure. Donc je vais terminer par quelques mots en souhaitant également que Cheikh Mohamedoul Muntaka